jaloo conclusion président laalu ci virgule. ni ñu ko ko joxee noonu la joxe conseil constitutionnel. conseil constitutionnel delloo ko xam nga loolu tamit mënoon nañ ko xaar c'est vrai ñii wax le deux juin bu fekkee ne président mu amut ci xel ñaar du ko jox conseil constitutionnel dafay ñëw mhm, mais dafa ne dafa koy joxaat conseil constitutionnel ñu seet est-ce que conforme na ci texte yi kon kay président ba tey mu ngi ci yoonu njub ak yoonu texte ak sart yu nga xam ni réew mi moom ci ci la tegu muy constitution ak code électoral. ci élection présidentielle parce que constitution ak code électoral ñoo organiser élection présidentielle. Mhm. xam nga man dama wax toujours man fonctionnaire la bu bu ñu génnee suma aspect politique fonctionnaire la administrateur civil la. man damay jàpp toujours que décision juge même ci sport bi ma nekk damay jàpp ne décision instance organe juridictionnel dama koy nangu quel que soit nu mu méttee mais bu ñu commencé na nga gis lu bari lu bari dafay mel ni léegi organe juridictionnel mu nekkatul organe de juridictionnel lu tax ma teg ko. mooy benn yow delloo nañ ay conclusion nga delloo président de la république nga ne ko élection bi mënul nekk avant après de avril. après 2 parce que su ko defee de avril après dafay am un vide juridique buy am. Mm-hmm. nga ne ko candidat yi munuñ ko ubbi. 19 candidats yi kon kay président bi tey nga ko tontu. Mm-hmm. boo ko tontoo président ma et puis aussi ma seddal ci yàlla man tey fekke naa conseil des ministres. président sax daf ko décaler pour mën a am lecture yëpp. bu mu ñëwee dafa liir texte bi wax ne lii la ñu conseil constitutionnel tallu te dama ciy tënku. c'est ce qu'il vous a dit. commentaire amu ci mayul sax nit ñi débattre ci. dafa ne lii mooy décision conseil constitutionnel man maa ne nous sommes dans un état de droit on se soumettra quelles que soient nag les observations des uns et des autres le plus important c'est se soumettre à cette décision. Mm-hmm. mais quand même pour moi le président la date du 24. que loolu tamit léegi loolu rek moo fi des. appliquer décision yi. il a fixé sa date. mu fixé date bi après on voit. li ci beneen conseil loolu foofu nag laa xam décision conseil et foofu la première fois man. ma mën a am xel ñaar parce que constitution euh, bi bi mu rejeté conseil constitutionnel bi mu rejeté loi euh, proposition de loi bi jógee ci PDS dama ni article 2 bi de buñ ko xoolaatee ba xoolaat war nañ ci mën a wax. Mm-hmm. bi mu ñëwee mu delloo conclusion yi mu ne élection bi mënul am après le 2 avril. boo xoolee par rapport ak sa première décision mën nañ ko mën mën nañ koo mën a comprendre mhm. bu ñu nee list bi dañ koy delloo mhm. mooy même liste bi war nañ ko mën a comprendre encore que dana am toujours ñu ko conteste mhm. mais li ma mënta nangu et loolu benn xel mënu koo nangu loolu tamit muy juge président de la république moom mooy clé de voûte des institutions mooy personnalité bu gën a rëy ci ab réew état yëpp la nag moom bu nangoo soumettre au droit su à la décision mais ñoom itamit ak loo nekk àtte àtte du ñu yàlla du ñu yonent mooy dafa tënku dañu war a tënku ci ay textes parce que dañu leen wax ni le collège électoral est convoqué par décret mm-hmm. amul benn texte loi organique bu bu organiser conseil amul benn texte maa ngi défier qui que ce soit dama me sortir un texte qui dit que le juge mën na le conseil constitutionnel mën na convoqués par. ils sont allés au-delà de leurs prérogatives manifestement. parce que man nañu wax ni sax. li nga wax nii dama koy dëggal j'ai contacté un un juriste laaj ko li nga ma wax nii la ma wax nee na ma ñaari date yi bu mais amul sax waxaale. ba pare bu fekkente tey président du nit ku dal nit ku doylu tey Sénégal dana nekk ci guuta tey ñoo ñoo ci dugal. c'est inacceptable ce qui parce que amul benn juriste bu mu mën a wax ni. Mhm. li conseil constitutionnel def. teg na ko ci yoon te ñoom ñu ngi invité président de la République ñu tegu ci yoon parce que bu ñu nee entre 2 avril bu fekkee élection bi dafa amoon 2 juin bi ñu ne amul texte bu ko organisé ñu ne président tamit bu waree convoqué après le 2 juin amul texte bu muy sukkandiku moom ñan ñoom nañ ma wax ban texte la ñu mën a sukkandiku pour mën a organiser or convoqué élection ba pare boo xoolee loolu sax la cohérence la pourquoi ñu jox président de la république muy convoqué élection parce que président la mooy organiser élection. Mhm. tey bu président toppoon ne leen waa d' accord 31 nañ ko def kan mooy organiser élection ñoom ñoo koy organiser ñoom ñoo nekk ministère de l' intérieur ñoom ñoo ne yore administration territoriale ñoom ñooy disposer de tout nañu waxante dëgg. il y a des choses qui se passent au conseil constitutionnel qui sont inacceptables. Ah absolument man am na lu nga xam ni dama sama àddina dama. dama rejoignez donc certains ci seen ah pour man la goutte d'eau de trop la goutte d'eau de trop c'est de convoquer à une date. convoquer le collège électoral à une date précise te xaaroo président def ko ñàkk ko def bu fekkee dañoo doon président convoqué en tey président jot décision bi tey xanaa kay nga xaar sax ba suba ba ginnaaw suba. Mhm. et manifestement li ñu bëgg mooy nekk au-dessus de tout le monde et ça c'est pas possible. te yemuñ ci sax parce que ñi nga xam la ne euh, le président bu bu organiser élection yi le le 31 le 2 avril. intérim bi day daal di te mooy kon ils ne sont plus dans une dynamique dans une dynamique de juge ils sont dans une autre dynamique et c'est extrêmement grave parce que président wax na ko waxaat. Mhm. nee le 2 avril du ma fi fekk nit ñi insisté nañu ñu bëri insisté nañu ñaan ko ko parce que loolu mooy stabilité réew mi. mais comment des autorités peuvent organiser une présidentielle. parce que en cas de second tour président dem keneen ñëw. Euh, voilà loolu moo lay moo lay wan ni man xam nga je suis très gêné par cette que j'ai mhm. parce état droit état droit la état de droit mooy ñiy jiite ñoom seen bopp dañ la soumettre au droit. mais boo jàppee euh, juge itam. ak loo mënta nekk tu es soumis au droit. Mm-hmm. mais jàpp naa ni ci lii dafa wane ni fang. heureusement mm-hmm. parce que man dafa mel ni Macky Sall am na lu ko yàlla may. parce que bu fixé wutoon date bi daf ko ci communiqué conseil des ministres. xëy na lii bu ñu ko defoon daan ñu ne président dafa bëggutoon. moo mm-hmm. tax heureusement que datu conseil des ministres bi moo jiitu seen dat ci information. ma lay wan ñu ngi woon ci leneen. mais loolu nag dama jàpp ni Sénégal ne mérite pas ça. nga président réew mi. ñoo ko bokk. réew mi amul benn ay compris mer naa fii am na lu ñu ma def lu ma metti parce que assemblée nationale def na ma lii may faywante nous ne sommes pas. mais ni nga amee loolu metti ci décision conseil bi lu la metti ci euh, li conseil def nii. est-ce que war woon pousser le président ci beneen posture bu wut bu maanaam. Euh, comprendre nga li ma bëgg a wax mais Mamadou dès le départ président mënoon na utiliser l' article. voilà 52. loolu dès parce que ñu ngi ci crise manifeste. crise bi ubbeeku woon na entre législative ak judiciaire léegi c' est presque judiciaire ak exécutif. Mhm. mais président dafa ne lii yëpp du ma ko utiliser. man mën na ko doon xaar pour jàmm laa bëgg ci réew mi. bëgg nañ élection na gaawee gaawee nañ ko def libéré sax premier ministre nga xam ne moom mooy candidat wu benn bokk yaakaar ne ko libéré naa la nga dem campagne. comme ça l'administration le principe de la continuité de l'administration mu bañ a am ay rupture parce que su doon ñu leen wax waaw moom bi mu nekkee président de la république pourquoi démissionné to mais président de la république ak foo mënta nekk mën na la fa fekk nga signé nga orienté mm-hmm. mais premier ministre assure la coordination de l'action gouvernementale mu ne comme que nag bëgguma réew mi état bi taxaw mën naa la libérer nga dem campagne électorale ma je vous souhaite bonne loolu y en tout cas man euh, j'ai j'ai j'ai j'ai toujours réaffirmé affirmé ma ma loyauté au président Macky Sall am fierté ci président Macky Sall tey laa gën a amaat fierté ci président Macky Sall en voyant comment il respecte les institutions comment il fait preuve de grandeur malgré métit yu koy dal à titre mm-hmm. mais tout ça le président s'élève au, au-dessus de tout cela et met le Sénégal au-dessus bañ li xaw ci yenn pays africains nga xam ne ay yeneen manipulation ñoo ci dugg mu xew Sénégal parce que nee na lépp lu xew Sénégal lu metti il en portera ah, yëpp rafet na baax na euh, c'est bien posture homme d'État la mais est-ce que pas un peu cherché parce que bi conseil njëkkee wax ak moom bu fixé woon date rek est mais il a préféré woo ay waxtaan ak ñoom tey loolu yëpp ça ne sert rien du tout. non mais nañu waxante li am conseil constitutionnel li mu ko wax mooy inviter les autorités compétentes à. meilleur délai. ñooñu dañuy organiser Sénat, d'accord e. mais mais loolu loolu mooy sa compréhension. élection ce n'est pas simplement ceux qui l'organisent ñiy participer ci élection bi tamit parce que fu mu nekk nii nee naa la charte yi boo dépassé charte yi mënatoo respecter charte yi parce que charte yi dafa ne woon entre le 18 et le 25 lañ ko mën a. comme dépassé nañ charte yi waxtaan a fi des. Mm-hmm. mais waxtaan bi il faut nga waxtaan ak acteurs yi acteurs yi du candidats yi kese je man contre naa nit di wax ni élection candidats yi ñëwoon mais candidats yi man je suis un sama carte am na solo nga foog ne sama sama baat amu ci solo mais ñi ma mën a représenté mooy parti politique yi société civile yi euh, sëriñ si kilifa kilifa diine yi à à tout à tous les niveaux ñu waxtaan et loolu la def. mais compréhension bi ngeen ci am conseil. ba pare compréhension bi loolu moo a jaaxal mais bi mu paree moom bu fekkoon dafa ñëw rek dialogue bi wax rek mu appliquer li dialogue bi. mais daf ko delloo conseil constitutionnel. Mm-hmm. je pense que élégance cër la bu mu ko jox. élégance ak respect des institutions. mais waroon na dal conseil conseil constitutionnel bi mu ko delloo conclusion yi may ko temps sax fi mu décidé. mais ñoom ils ont été élégants la première fois les sages mais mais mais man décision ci amal élection yi mais problème gis nga au-delà de ça ñun ñëpp ay citoyens lañ décision bi président di jël bu ci président moom bu fekkee ne dëggal na décision bi def ko ci par décret te yàgg jàpp na ak décret bi signé nañu ko. Mhm. jafe-jafe amatu fa. mais mais parce que conseil constitutionnel jàpp naa ni loolu Sénégal yëpp jëpp mooy njumte bu flagrant kenn mësu koo gisee. mais ba pare am nga mën si am na yu bëri sax yu nga xam ne mën nañ cee sori. ci candidat élection yuy saisir conseil constitutionnel ci ci ci li ma jàng. Mhm. gisuma nag fenn fu ñu bind bindale parce que nag entre la lettre et l' esprit c' est d' abord la lettre. dañoo ne candidat fu muy mën a jot conseil constitutionnel mooy bu ñu déposé candidature bu ñu waxee première liste provisoire bi réclamation yooyu nga war a demoon a def. Mhm. foofu la mën a nekk mais à tout bout de champ supprimer nañ abrogé nañ décret te loolu compétence su cour suprême la. ñu ne way ñu étendre seen compétent ñu ne lépp luy jëm ci élection mën naa ko mën nañ ko mën a nangu mais dem nag bay substituer au président de la république dans son pouvoir décrétal c'est absolument c'est absolument